képp koo xam ne amel naa la àq rek maa ngi lay jégul di la baalu àq macha allah kaar bul ma catu bul ma catu damay liggéey man waxuma benn xale bàyyi naa la ak yàlla lu xale yi wàq ma suul gis nga lépp dara ump la ci kon nag yàlla na nu yàlla defal jàmm te mosuñu cat at làmmeñ ndax dama dégg am ñu taxaw ñu wax ne man dama am problème mu tat dama lay laaj am na ñu ko wax ñu war a lekk xaj non man. waxuma wulli waxuma wulli ok ora bëgguma jaar ci tur bi ngóor sa sant Ndiaye ah waaw ki dëkk caaro yi na man dama am problème mu bopp ndax xaj na accident ba ma defoon moo tax sama gars yi maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xaare àjjana ña ma loon ci accident ba ku ci mel ni père Alioune Seye père Gora Seck Cheikh Mbeng Cheikh Seye Mama Ba maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xaare àjjana man defuluma yàlla lu tax mu bàyyi ma fi ñoom defuluñu yàlla lu tax mu yóbbu leen yàlla na leen yàlla xaare àjjana yàlla na leen yàlla xaare àjjana yàlla na leen yàlla xaare àjjana. combat yi fu ñu toll. yi ñoo ngi pare tubaarikàlla macha allah yàlla na nu yàlla defal cat musal ñu ci saytaane at làmmiñ at bët bu aay at wax bu aay ñu yor seen làmmeñ di rattati di wax ñun ñun ñoo bokk ndey ak baay ñun géejaway géejaway lan am géejaway li ñuy fu nu taxaw lu ñuy présenté lan la ñuy wax lan la ñuy wax waaw ah su man laa fu ma dem fu ma taxaw lan lan may woowee ok all kon nag lu ñaaw amu fi te lu ñaaw du fi mës a am déedéet ñëpp samay rakk lan est-ce que jotul yow ñu toog ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ndax am na yoo xam ne soon koy wax yéen yéen a yokk xari karaw waaw yéen yéen yokk xar mu karaw ndax soo demee jël xale bi wax loo ko jël kee wax loo ko laaj loo ko loolu laa bëgg j'arrête j'arrête ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay Balla Gaye oo Lac guy Guiers oo Gouye Gui ñoom Marley ñoom Alioune Seye 2 fils de Balla ñoom Jackson euh, ñoom Eumeu Sène junior xale yëpp dañoo topp seen ginnaaw mag mag yi jox xale yi seen cër xale yi delloo ko mag ñi seen cër ndax loolu mooy adduna loolu lañ fi am. mais Lirou est-ce que comme ni nga ko waxee ñoom ñëpp benn lañ. barki Serigne Saliou Mbacké may ma tuuti ma wax la non waaw. est-ce du dara fi mu may ma may ma tuuti ma wax la loolu lépp dina am. loolu lépp dina am ndax xam nga lu tax yéen ni ngeen di waxee yéen yéen seen genre yi ay non seen genre yi ay saytaane ngeen. waaw ay saytaane ngeen nangu leen rek non non non non am na. ay saytaane ngeen nangul. non waaw. da ma ci boole bu si nga bokk. Eh, ah oui yow yaay saytaane bu jigéen bi yow saytaane nga ndax xam nga lu tax soo laajee booy bi wala nga laajtee wala nga laajtee di ko cuq ci yéen yi wala nga xudd ko ci yéen loolu mooy affaire saytaane bi loolu mooy affaire saytaane bi. la dëggeeroo Balla Gaye guy gi billaahi wallaahi wa taal ñun ba ñu ñu dégg dëgg ku ñu wax dëgg déglu ma ku ñu wax dégg ñu kan ci man man man yóbbu ma ko yëguma ko dëgg la yëguma ko maa ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla may ndam ndax sama rakk la sama xarit waaw incha allah man dinaa dem istat yëguma ko woon waaye ma xamal la benn affaire yàlla nanu yàlla musal si cat ak làmmiñ la sept août lañ jëm yàlla nanu yàlla may ndam lu sedd guy te incha allah rabbi dina am at la 14 waaw fils de Balla fils de Balla moo Balla Gaye moo njëkk a bëri fii moo njëkk a bëri fils de Balla la may ma tuuti ma ñëw rek bul ma parax parax la 7 août maa ngi woo fépp fan si Balla Gaye 2 fu mu nekk. Balla Gaye Balla Gaye àdduna bépp la am fan ñu préparé dem feesal arène nationale def ko nan ko nan defee seen mbër ñëw bégal leen bëre bëre bi xeex xeex bi daan daan bi ñu ñibbi si géejaway feete ko ndax tubaari tubaarikàlla macha allah liggéey na te xam na li koy xaar. combat bi dina wuute yi fi daa am. mais Balla Gaye gis nañ ko macha allah mi ci forme. kaar bu ko catu. waaw léegi macha waaw waaw man dégguma sax macha allah. waaw macha allah mi ci forme la. kaar. la set. la loo gis Balla Gaye parce que Gris Bordeaux lu nekk mi ngi koy wax. waaw na moomee ñoom ñaar dina métti na moomee wax ji. wax rek lay def. Ah tekkatu xel la. kon Gris. waaw. tekkatu xel la tekkatu xel la. Gris oh, dimbali ma dafa dàq dafa dàq xeex Balla Gaye. waaw damay laaj dafa dàq xeex Balla Gaye ah dama lay laaj da ko dàqee maanaam dafa dàq seen premier combat ba kan moo dem ardo kan moo taxaw ba dem ba këram naan kii kan la ban site la kii ban télé la la kii kan la xoola dimbali ma xoola yow dimbali ma saytaane rek nga sa gàttaay bi kenn xamul looy nuróol nga na ma ay perkat yi fa fu ko neex na ko yóbbu fu ko neex na ko yóbbu ñun su nga ne ngay lan kan moo lay wax loolu waxul lu am Balla Gaye mën na bëre cent minutes waaw waxul loo am su dof dofloo ñu moom ñu dóor ko mu daanu moom ah, waaw su dofloo moom ñu dóor ko mu daanu waxul lu am waxul lu am waaw bee passé ñaata yoon ñaata minutes lañ bëri trente minutes ah kan moo dem ar ardo ah kan moo naan ndox waaw kon nag jeex na mais bi yoon nag est-ce du oh, lay fayu jéeba ah. tekkal lay tekkal xañ ne xaru tabaski bi mu ko jox ci tabaski bi moo ko cuqur moo tax muy wax te xar man ko jox dafa duuf dafa am a ah xamoo ko Gaston Mbengue moo ko jox xar xar moo moo ko coxat fi ne moo tax muy wax rek moo tax muy wax rek voilà graisse gee bëri ah kooku du ma du ma wax ay waxam ndax naa fekk la naaf fekk la turam laay bañ a jaar naa fekk la saytaane la nga ne li muy wax gëmu gëmu ko seytaane la naa feq la ndax wax ñu ñaaw la man lu ne wax na ko maa ngi koy dégg euh, rumeur am mi ngi egsi na ci man démb écoute yi egsi na ndax am na benn booy journaliste bu ñëw ci man nee na dafa seetaan interview wu saa kees bi moom mu taxaw di wax lu nekk wax na ko waaye loolu ñu mu génn ñu génn ci làmmiñ wax ma ko man ne moo ko wax maa ngi xaar mu taxaw ci peres wax ko su ko waxee dee dégg musuba am moom barki Serigne Fallou Mbacké nit a ma ko wax koo xam ne ñu ci presse bi nee na ma li mu ko wax wax ko ma dégg ko ndax li ko saa kees tontu saa kees lim ko wax c'est normal mu wax ko saa kees li mu wax aayul nee na ko nee na ko moom sama papa la sama kilifa la bët ki euh, bët kilifa laa koy xool ah kon nag am na wax yoo xam ne kilifa waru koo wax ah saa kees loolu la wax aayul nag lu nekk mu wax ko mi ngi koy wax maa ngi dégg loolu muy wax noonu ñu koy ruumandaat suuf nit ma wax na ma ko billaahi wallaahi wa taal te ki ma ko wax mun naa jaar ci turam man du ma ko nëbb du ma ko làq booy boobu moom ko wax nee na woo na ko téléphone nee na woo na woor na ko nee na ah wóoruma de booy bi ci boppam nee na ma li mu wax saa kees maa ngi xaar nag loolu ma wax mu génn ko ci presse bi ba ma dégg ko sama nopp billaahi wallaahi wa taalaay loolu ma booy bi wax ne moom ma ko wax bis bu ko génnee bu ko génnee ba nit ñi dégg dina dégg mu subaam